ma wax leen ci oustaz Makhtar Sarr xam nga dama ne man su ma koy présenté dama ko présenté islamologue mais dama koy présenté avocat wu daara yi avocat wu ku laal daara laal nga ko bokk na ci senegal ñi nga xam ñu ëpp lu ñuy wax lu ñuy xeex lu ñuy def ay komba yu jëm ci wàllu daara parce que yàqkat yàqkat boo gisee ngay def dara te mu xam ne lii dëppul ak li muy def dafay jéem daf lay jéem day jéema day jéema a nu ñu koy waxee sax day jéem a day jéem a euh, euh, descrédibilité li ngay def day fexe ba li ngay def mu ko jox crédibilité bopp du am crédibilité ba nga xam nit ñi dañ koy commencé daw su ko defee mooy tax yenn saa yi ñu génn ay kàddu yu bari ñu koy teg teg ko teg ci kaw kàddu di ko teg ci kaw daara waaye saa yu kàddu yu jógee rek ba nga am xol bu naqari rek boo ci tegee benn fan wala ñaari fan di nga bëgg ndax dina taxaw dina taxaw taxawaay bi mu war a taxaw def ko ngir daara yi pour défendre daara yàlla na yàlla fay ko yiw yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaay bi mu war a waxtaan ci thème bu am solo mu war a waxtaan ci thème bu am solo muy fadailul qurani wa atharu taalimihi li nashi fi daawati almuhammadiyati ma répété ko fadailul qurani wa atharu taalimihi li nashi fi daawati almuhammadiya xam nga loolu mooy ci woon ci olof man duma ko firi comme moom mi ngi ci liggéey xam naa dina ko am ci firi nu olof bu gën a jàppane boo xam ni su ko waxee da ko dégg moo tax dama koy bàyyi loolu mu waxtaan ak yéen ci thème bii nga xam ne moom lañ tànn ci bëccëgu tey bi oustaz Makhtar bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi alladi nazzala alfurqaana ala abdi li yakuna lil aalamiina nazira alhamdulilahi alladi allama alqur'aana xalaqa al insaan allamahu lbayaan alhamdulilahi alladi allama bilqalam allama al insaana maa lam yaalam wa ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdahu wa rasuluh aw abduhu wa rasuluh annabiyul akram allama alqur'ana fa kaana xayra muallim fa salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyoo naa de salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wala koor gi fa leen a jàpp. yal na nu yàlla boole nangul. yal na yàlla boole sunu koor ca koor ya mu gën a gërëm. muy kooruk xawaasul xawaas ya yal ci yàlla boole sunuy koor yàlla bu sunu koor yem ci xiif ak mar noo ngi yëkkati kàddu nuyoo sell yu tedd di ko jëmee ci seen jëmm yu tedd yi teew ci jataay bi di yëkkati nuyoo yooyu yépp di ko teg ci loxo sunu sopp bi toog di jàmbaar ci waaru diine ji ak ci tariixa bi muy Oustaz xalifa Mboup di kok bari na aw nit yu ngeeju lool gis jëmmam ngir sopp ko waaye kàddoom lanu gëna miin ci jëmmam la gëna gën dégg ci gis ni jëmmam waaye bari na lool aw nit fu ma dajeek ñoom ci xew-xew yu ni mel ñu yóbbante ma nuyoo ci moom ak Oustaz Modou Kama Thiaw ngir yàlla ak seen taxawaay bu rëy ci défendre diine waaye tamit défendre tarixa bi mën naa ne ci waar woowu laa ko xamee ci laa ko soppee yi tabaarakallah waaye loo dégg ci moom ba sopp ko ci kàddoom boo ko gisee ci yaram ci dalam ci comportement gën ko sopp yàlla yàlla lafal ko cat yal na yàlla mottali mission yàlla defal ko ndam ci daara ji ba fépp foo xam ne bëgg na fa yeggale liggéey bi sunu boroom tabaaraka wa taala jàppale ko ci ah mu mel ni sagu na lool tey ku fi ñëw nekk doomu daara déglu ndongo yi ñu tari alquran ci anam giñ ko tare da bég waaye bu ñu ne la mokkal nañu téere bi ak aas bi nu am danga gën a bég ndax yombul yitte dëgg mooy jur résultat yu ni mel jaar nañu ci daara jéemantu nañu jàng ñu ngi jéemantu it di jàngale waaye kaamil bi kaamil bi ndawul de kaamil bi ndawul de téeméeri saar ak fukk ak ñeent di fanaan ci bopp gone loolu yitte dëgg a koy may ba tax na kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na résultat yi gën a yokk di ndokkeel it asaatisa yi ngay jàppalanteel ci daara ji ndax bu doon Cheikh Khalifa rek bu résultat amee mën naa bañ a bari waaye bu résultat yi di gaaw tey bari tabaarakallaahu loolu mbooloo ñooy àndandoo di ko def kon ñu ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla mu wéral leen bu ñu tegee nuyoo bi ci sa loxo mu yóbbaale mbooleem kilifa yi fi teew nuyu nañu ñëpp ziyaara ñépp ndokkeel ñépp ci weer wu tedd wii ci jataay bu sell bi ci bis bu màgg bi tabaarakallaahu ah liñ ñu sas ñu waxtaane ko nag mën naa ne daanaka waxtaane nañ ko ba noppi ndax téere bi boobu ba léegi moom lañ fiy jàng te waxtaan wi yépp dafay dellu ci téere bi ak njabootu yenent bi sallallahu alayhi wa gi ñu wàcce ci ñoom téere bi alquran waxu sunu boroom la te ku ne ni nga tollu sa kàddu noonu lay toll soo bëggee xam rëyaayu alxuraan jéem a xam màggaayu sunu boroom ci ngay xam màggaayu téereem bi zul izzati wal jabaruuti wal mulki wal malakuut asamaan si ngay séen benn la ba juróom ñaar kii boroom sàkk ko yàlla koo ko wax waxam ñu ne mooy alquraan alquraan ay wax yu nu dajale suuf si ngay dox di tabax ci kawam dëkke ko benn la ba juróom ñaar kii boroom suuf si waxam moom lañu wa tuddee alquraan nit ñi fi teew ñépp ki leen sàkk ñeneen ñi fi teewul ki leen sàkk waxam mooy alquran soo doxee ba gis géej li ndox mi bari bari amul fu mu yem ci bariwaay boroom ndox moomu moo wax alquran ngelaw liy upp ki koy upp mooy boroom alquran loo gis mu yéeme lu mënti doon ki ko sàkk moo wax alquran waaw xanaa yu yéeme yu bari yii ki ko sàkk yéeme na yéemeem nag mooy yóbbaale yéemeeg téere bi moo téere bi mooy benn téere bu ñuy mokkal lim buñ koy mokkal ba téere dalee doon téere ba tey amul benn téere bu nuy wattu di la mokkal lu toll ne ni nuy wattoo alquran di ko ni mokkale yàlla mi ne maa ko wàccee inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu la xaafidun wattu gim ko wattu firnde bi bokk na ci mooy tey nga ñëw fii ci daara ji fekk xale yi ci aas bi mokkal téere bi bu ñu ne woon kaamil manqué na usines yi doon defar kaamil tëj nañu benn kaamil defaratuñu ko kaamil du tax mu jug ci kaw suuf ndax ñi ko mokkal danañ ci bindaat ay millions yi millions yi millions yi kaamil beneen téere bu dul moom bu ñawoon manqué na usines yi ko doon defar tëj nañu bu ñu toogee diir téere boobu day raaf waaye alquran li sunu borom ne noo ko wàccee te noo koy wattu wattoom gi bokk na ci ñu koy wattu ñu koy mokkal ci wattu gi yàllay wattu téere bi la bokk téere boobu nag boo demee ci biir téere ba sunu borom mi ngi wane ne téere bi bokk na li tax mu ñëw ci kaw suuf mooy jële nit ñi ci lëndëmug réer yóbbu leen ci lënd ci leeru xam jële leen ci lëndëmug ndëngte yóbbu leen ci leeru njub pëccëxoo bi am ci kaw suuf la téere bi ñëw ngir régler ko man sa moroom duma gi nekk ci kaw suuf la téere bi ñëw ngir régler ko sunu borom nee na alif laam ra kitaabun anzalnaahu ilayka li tuxrija annaasa min adulumaati ila nuur waaye bi izni rabbihim ila siraatil azizil hamid yàllaa ngi wane ne li tax a ñëw téere bi mooy jëlee nit ñi ci seen ñàkk xam muy lëndëm yóbbu leen ci ak xam muy ak leer ku jàngul rekk ci lëndëm nga nekk waaye ku jàng rekk yaa ngi ci leer alxuraan ku ko manul ci lëndëm nga nekk mais ku ko man yaa ngi ci ak leer ndax li tax yàlla indi nu fi mooy pour nu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabudun ndax nit mën naa jaamu yàlla te xamu ko téere bi dafa ñëw ngir xamle yàlla téere bi alquran dafa ñëw ngir xamle yàlla loolu moo tax bindkat ba ne man istamsaka bihi faqad bi la urwatil wuska ku jàpp ci alquran jàpp nga ci buum gu dëgër gudul dog mukk wa man arada anhu wa talaba alhuda fi gayrihi faqad dalla dalalan baida ku bëgg a jëm kër yàlla bàyyi fi alquran doo yegg dangay ngay téere bi mooy code de la bi téere bi alquran mooy code de la kër yàlla ku bëgg a jëm kër yàlla te jàngoo kot de la bii nga xam ne moom la yàlla wàccee doo yegg dangay ngay sànku mënoo doon jullit mukk sëg jullit wér nga ba fi téere bi mënoo ne dangay jaamu yàlla mukk sa jaamu wér jàngoo téere bi kon ala kulli xaalin téere bi faawu nga xam ko téere bi faawu nga jàng ko kon téere bi dafa ñëw ngir raxas tilim tilimu xol yi te umatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu doonee ngën ji xeet li nu doonee ngën ji xeet mooy bi ñu doonee bi ñu amee ngën ji téere ak ngën ji yenant téere bi bi ko xeet wi amee lanu gën xeet yépp waaye ngëneelu xeet yi ci seen ngëneelu yenant ngëneelu xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa ci ngëneelu yenent bi yenent boobu noonu alxuraan ju doon dox la téere bi day jubalaate te départ beeg terminus bi li fi yàlla soxla terminus bi la mooy fin bi te fin wu wuti yàlla ak fekk yàlla li mu soxla ci nun mooy nun ñépp balaa noo faatu nanu jub te téere bi day jubalaate inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazalu alayhim almalaika an laa taxaafu wala wa abshiru biljannati lati kuntum nangu ne yàllaay seen yàlla ñu fexe ba mel ni yàlla bëgg laataa ñu koy fekki bu ñuy faatu malaaka yi ñoo leen di accueillir naan leen bu leen tiit bu leen jàq bu leen jaaxle ajjanaa ngi leen di xaar istiqaama googu alquran da koy maye jàngal téere bi inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam lillati hiya aqwam inna hada al qur'ana téere bii xale yi di jàng ci daara ji sunu borom nee na mooy wone yoon wu gaaw wi pour yegg ci yàlla yoon wu gaaw wi pour jub yoon wu gaaw yi ngir defaru tey woy jur yu baree baree baree bari nangu nañ ne seen doom daara jaa ko defar gannaaw bi nga xamee ne demoon nañ ba ñàkk yaakaar ci moom waaye bañ ko jëlee yóbbu ko ca daara ja la yaakaar dellusi ci seen doom kon kay yahdi lillati hi aqwam ñaataa jëloon yoonu ndëngate nga yóbbu leen école nangootuñoo jàng nga yóbbu leen ñu jàngi métier ñu lànk nangootuñ ko jàng nga jël leen yóbbu leen ci daara oustaz xalifa mbuub sa doom bu la daan nuyu day dummoo benn catu loxo la lay jox mu def fa deux mois nga ñëw seet si sa doom mu nuyu la jox la ñaari loxo sëgg inna hadha al qurana yahdi lillati hiya aqwam sa doom jooju di la jox ñaari loxo wàcce ay bëtam ci suuf bokkul ak sa doom ji la daan jox catu loxo wan la ginnaaw kon téere bi dafay defar nit téere bi day yar nit téere bi day jubal nit sunu borom waxaat na ko bi muy wax ni téere bi ci weer wi la wàcc chahru ramadan alladi undila fihi alquran hudan linnaas hudan linnaas wa bayyinaatin min alhuda wal furqaan sunu borom nee na ci weeru koor laa wàccee alquran objectif bi global boo ko boolee jubluwaay bi lépp nga dajale ko mën nga ne dafa ñëw rek pour defar nit dafa ñëw ngir jubal nit dafa ñëw ngir teg nit ci yoonu siraatal mustaqim sunu borom waxati ne alquran day saafara nit maanaam day defar nit day faj nit ku feebar tey boo amee bëñ buy métti da ngay seeti dentiste yi ñooy faj bët ñooy faj bëñ am na ñuy faj bët am na ñuy faj nopp ba mu jeex lu la dal ci feebar yaram lu lay métti am na koy fe seeti mu faj la ba ci feebaru xol ci waxin wi ci zaahir xol am na ñoo xam ne dañ koy faj dañ naan dañu am cardiaque ak yu mel noonu mais feebaru xol bi nga xam ne nii rëy nay iñaan xat siis bëgg daraja bëgg tagg topp ko ba jikko yooyu noonu la jeex ci jikko yu ñaaw ci xol lay installé wu te yàlla nee na téere bi dafa ñëw ngir faj feebar yooyu feebaru iñaan amul benn hôpital booy dem docteur di la ko fajal feebaru nay amul benn hôpital booy dem docteur di ko fajal waaye sunu borom nee na wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin lil muminin lil muminin wàcce nañu ci téere bi di alxuraan loo xam ne dafay saafara te yërmande la ñeexal ñi gëm yàlla boo demee ci tafsirul baxawi bi muy firi wa nunadilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin dane alquran dafay saafara ngumbak xol di saafara kéefër di saafara ak naafeq ibnu abbas moo ko firee noonu Baghawi dane dafay saafara ak réer moom alquran loolu la Baghawi wax ne réer lay saafara ibnu abbas moo ne alquran day saafara kéefër di saafara xol bu gumba di saafara ak naafeq ci xol Qurtubi ne gën na yaatu lool sax moom alxuraan day saafara bay saafara war a jàngoro yi ci biti nee na day saafara ñaari jàngoro mooy jàngoro zahiriya yi wal batiniya jàngoro yi nga xam ne dafa feeñ alxuraan daf koy faj jàngoro yi nga xam ne dafa nëbbu yi tamit alxuraan daf koy faj téere bu yéeme la mag ñi ko xamoon fonk ko lu ne lañ ci def <laughs> alxuraan mag ñi ko xamoon fonk ko lu ne lañ ci def bi hôpital melagul nii mu mel hôpitalu mag ñi téere bi la woon lu leen manti metti nu mu manti toll lu mu manti doon dañuy dem ci alxuraan rek seet bu dëppook la leen di métti ñu def ca lañ cay def la leen di métti saafaraw ñaata yoon lañ génne laaye ci alxuraan juy faj bopp buy metti ñaata yoon lañu génnee laaye ci alxuraan buy dindi wànnent ñaata yoon lañu dindi laaye lañu indi aaya ci alxuraan buy faj nopp buy metti nopp buy metti aaya ci alxuraan ñaata yoon lañu indi aaya ci alxuraan boo xam ne waxuma la sax di faj yooyu mais réveillé bu ma amagul réveillé mag ñi indi nañu ba indi aaya buy yeete fajar waaw boo nekkaan ci daara ji di jàng ñu ne la danga war a yeewu fajar jàng sa bind dangay ngay dem suuratu zilzila izaa zulzilati l ardu zilzaalaha wa axrajati l ardu wa qaala al insaanu yowma izin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw waaye mag ñi xee lañ doon jëf bi anna rabbaka aw xeelaha wars bi anna rabbaka aw xeelaha baatu xee la jël rek ne gannaaw nee na xee daal te dama bëgg a yeewu naay naay wax aw xeelahaa yem foofu te boo koy def buy fajar di jot nga yeewu xanaa nga yeewu nelawaat waaye da nga yeewu ba ci seen laaya jooja ca njeexiti sóoratul fii moom it doo ko jàng mukk lu doon ne fajar waxtu wa xadratul ilaahiya di am di yeewu ca waxtu woowu noonu li borom Ibrisa ko wax Cheikh Abdoul Aziz waaw nee na assemblée bi sunu borom di amal wëlu ya di fa teew xutbu ya di fa teew yenent ya di fa teew waxtu fajar lay am ca xaaru xilaa xiraa lay ame nee na kuy jàng laaye ja ca njeexitu suratul kahfi sunu borom dana la dimbale ba waxtu woowu bu jotee di nga yeewu xanaa kay danga koy jàng yeewu te daat waaye waxtu woowu moom fu mu jotee di nga yeewu pour wane na ñoom weesu woon nañ sax faj ci jàngoro waaye heure bu nu bëgg a yeewu rek dañuy dem ci téere bi jël laaye ju leen di yee ñun nag ñoo ko réere tey waaye seen lépp alquranul karim lañ ko doon lijjante ndax maa farat naa fil kitaabi min shay sunu borom nee na téere bi bàyyiwuma ci dara kon alquranul karim dafa ñëw ngir saafara xeet wi laataa muy ñëw fekkoon na nit ñi di ut ay yàlla alquran ñëw ne yàlla du ñaar du ñett mais benn la kon jële na nit ñi ci bokkaale yóbbu leen ci tawxiid téere bi laataa muy ñëw man sa moroom duma moo fi nekkoon alquran ñëw woote ci justice bi ñu fi bàyyee alquran dem di jël leneen lu dul alquran la injustice am la cheikhul xaaj abdul aziz si dabbaax waxoon ne kitaabu rabbina huwa alkitaabu tamasaku bi huwa sawaabu dem ba ci biir buñ ci yeggee ci waxtaan wi danañ jukki lenn ci xasiida boobu dem ba ci biir mu ne wa maa kot siwal quraani fa gayruhu fa huwa kotu sheytaani Cheikh El Hadj Aziz ne nun amuñu benn kot buñ naan nu kot bi lii la wax bu dul alxuraan boobu ci jamonoy kot de la bi la ko defoon bi Senghor indee code bi ñu mbëkkante ceeg moom mbëkkante yu metti sangoor jaay doole jàllale code bi ci la bindee woon xasida boobu tol ne ñey ubbee ko kitaabu rabbina huwal kitaabu tamasaku bihi huwa sawaabu téere yàlla bi dong mooy téere jàpp leen ci mooy yoon wu jub bi dem ba ci biir mu ne ñun amuñu benn kot bu ñuy indil bu dul alquran beneen kot bu dul alquran code seytaane la article nangam article nangam article nangam aaya sàngam aaya sàngam aaya sàngam a fa waroon ne dama dégg imam Alioune Badara Ndaw mu waxtaan ci bis waxtaan waa am solo mu ne imagineel bu ñu doon àttewoo alquranul karim ni réew mi di di di jaaree ci yoon ndax day fekk mu nekk code boo xam ne dafa nekk ci bopp yi ñu mokkal ko tey sunu constitution bi kan moo ci mokkal cinq articles naka lañ la mën a àttee ci constitution boo xam ne yow la ca nekk xamoo ko ba noppi ñu yóbbu la tribunal ne la kenn waru la kenn kenn waru la réere loi te luwaa bi yow jàngaluñ jàngaluñ la ko fii ngay toog ci Louga ay député dem ndakaaru bërëb bu tudd assemblée national voté fay luwaa mu fekk si la fii Louga nga am loo def ñu yóbbu la tribunal nga ne xaw moon dañ koy tere ñu ne la dañ nga ko waroon a xam te bañ ko voté fële ca ndakaaru indi luñ la ko Louga li yey ndëngate dëggi dëggi ndëngate kenn warul a réere luwaa te luwaa bi dañ ko voté dem ko dem tëj ko yow indi luñ la ko nga jàng ko imagineel bu ñu ne woon loi bi mooy téere bi constitution bi mooy alquranul karim soo defee dara sa doom mooy taxaw ne la papa loolu yoon day dal sa kaw de ndax sunu boroom nee na wala yaxtab baadukum baada constitution bi day tere jëw te li nga def nii papa nga baal ma mais jëw la nga ne ko ah mu ne la waaw jàng naa ko ba ma yóbbee daara ja lañ ma ko jàngal am kum romb ñu koy bantal ci mbedd mi ngir dafa jël mu ne hé bu demee tribunal de yoon dana tegu ci kawam de ndax wa saariqu ah faqta'u hé moom dana ñàkk loxo de ndax constitution bi nee na dañoo war a dog loxoom am ko njaaloo ñeent seede ñëw yam ca ñu jàpp ko coow la jug xale bi am dix ci daara Oustaz xalifa mooy ñëw ne hee yoon dana dal seen kaw de ndax constitution bi nee na azani wa zaniyatu waaw hee yoon day dal ci kawam de ndax nee na borom ku borom musóor gi ak borom mbaxane mii bu ñu wàccee yoon yar day tegu ci seen kaw téeméer nag bu ñu mosuta sëy ay jam ba nu faatu nag bu ñu mosee sëy lan lay jur mooy xale bii mokkal constitution bii di ko jàngal sax mag ñi nga xam ne nii xamuñu ko woon su demee ba màgg li constitution bi tere xam na ko dana ko bàyyi kon gis nga njëriñu àttewoo téere bi ni muy nekkee luy jural njëriñ boroom waaye tamit ni muy defaree li nga xam ne ni moom mooy société bi kon ummatu muhammad sallallahu alayhi wa seen ngëneel li nu gën ku dul ñoom téere bi dafa ñëw ngir dëggal ngëneel loolu noonu le buñ ci tënkoo li sëriñ Cheikh waxoon ne diina yenent bi sallallahu alayhi wa àdduna ak àllaaxira la ñëw pour régler ko nu ko waxatee fa inna diina rasulillahi fiihi lana xalul masaakili duniyaaha wa uxraaha diine yenent bi sallallahu alayhi wa ci biir diine ji luy defar àdduna ak alaaxira mi ngi ci waxuma diine ji lépp mais ci biir diine ji rek am na ci luy defar àdduna ak alaaxira te téere bi bu nu ko appliqué woon mu defar sunu àdduna defar sunu alaaxira léeg-léeg Occident bi ñoo nuy tiital ñenn ñu seen ngëm yi faible ñoo nuy tiital ba buñ ne àttewoo lislaam ñépp ne noo dem na sax ba terme boobu léegi ñu bari dañuy tiit pour wax ko àttewoo lislaam wooy la problème ñu ne dañoo war a àttewoo lislaam dem na ba Europe yegg nañ ci njaay xàlle ba terme yooyu léegi boo koy wax dangay def apologie terroriste maanaam boo ne dañoo war a àttewoo lislaam yaa ngi def apologie terroriste maanaam terroriste avec lislaam dañoo war a fexe ba ku sàcc ñu dog sa loxo ku njaaloo ñu caw la ku xas gor ñu caw la juróom-ñett fukki yar ku naan sàngara noonu yooyu noonu nga xam ne luy defar société la ñu ne yooyu noonu noo loolu kenn waratu ko tudd bàyyi leen ñun ñuy àtte mais bu yàlla àtte te ki bañ ko rey ñu rey ko cay réewam ma ngi fa bàyyi peine de mort boo demee États-Unis états yi bari ñu ngi ko fa bàyyi ba tey ku rey ñu rey la ba léegi ñu ngi ko fa bàyyi senegal amoon nañ ko 2004 lañ xëy dindi ko ku rey ñu rey la te loolu luy defar société bi la bokk tey ñaata nit ñoo nekk ci kaso bi rey nit moo leen fa yóbbu ñu feesal kaso bi rey nit ba noppi ñu jël la tëj la ci bërëb di la dundalaatee alalu réew mi léeg sax am ku kuñ ci ne ba génnee ko mu delluwaat reyaat nit ñu jàppaat ko tëjaat ko te suñ borom nee na ku dem ba am xalaatu rey nit te tey ko buñ ne rey nit nekkul ku rey rek ñu rey ko mais ku rey nit te tey ko kooku lanu wax ne nañu ko rey ku rey ci njuumte kenn du ko rey soo reyee tey ko sax ci àtte mbokk yi ñëw ne baale nañu dañuy laaj diya deesu la rey mais rey te tey ko la sariya wax ne ku rey bakkan te tey ko nañu la rey loolu kay xanaa xel nangu na ko kii per de famille la ñaata nit ñoo génn bàyyi seen doom bàyyi seeni soxla génn di uti lu ñu leen dundale jenn waay jóge fale dogale per de famille boobu jël bakkanam ay doomam di jirim ay soxnaam di tëñ ji ñu jàpp ko ko rey mu avoué ne moo ko rey ñu ne nañ ko rey ñu ne noo droit de l'homme xanaa lom même ñu rey moom amul droit wala dadul l'homme <laughs> ah boroom kër gee bàyyi soxnaam ak i doomam moom dem doon uti lum leen dundalee waxtu fajar la génn këram nit dogaale ko jam ko ba mu faatu ñu ne nañ rey kooku waa droit de taxaw ne noonoo non droit de l'homme droit waaye lom male moom xanaa da dul lom xanaa bàyyiwul wuli lom waaye xoolal sunu borom mu ne gannaaw ñële dañuy dëj famille A famille B tamit nañ dëj jàmm am anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni wa sinna bi sinni wal juruuxa fa man tasaddaqa bihi fa huwa xoolal wa man lam yaxkum ya wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaayika humul humul humul allahu akbar fa ulaayka humul kaafiruun humul zaalimuun humul faasiquun yàlla nee na ku damm bëñu jàmbur nañu damm sa bëñ ku luqi bëtu jàmbur nañu luqi sa bët ah ku jël paaka ne ko dëbbuus nit nañ ko jël yow tamit ne la ko dëbbuus lu toll ne la nga ko ko jam koo jël bakkanam nañ jël sa bakkan sunu borom nee na lii ma tëre tëral ku lànk ne duñ ko àtte woo tooñkat nga ku génn topp nga yéefar nga alaysa allahu bi ahkamil xaakimin dëkk bi li fi nekk yépp ñi koy jàmbat ci xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gën jaa ci àdduna bépp mooy biñ jëlul téere bii di ko àttewoo waaye buñ ko àttewoon benn un rek buñ ko testé woon essayé rek un an àttewoo téere bi li ñuy rëccu mooy yéex gee def waaye na dëñati kenn dootu ko waxati tey li ñuy jàmbat ci yorinu alalu mbooloo yorinu alalu mbooloo xam nga téere bi bi mu àttewul la kees noir mais téere bi bu àtte woon caisse day blanc mais du noir caisse noire lu ko noiral ah caisse bu téere bi àtte woon kees gi day blanc mais du noir kees gu ñuul kees gu ñuul lañ la jox lu ko ñuulal bu doon téere bi mooy àtte kon kees gi day weex mais du ñuul ndax ku ñu dénk lu ñépp bokk du pour yow mais pour ñépp waaye bi téere bi àttewul ragalatuñ borom téere bi mais contrôle lañ ragal terewuñ la bul jël waaye dañ naan la bu mu am faay fexeel ba bu mu am faay bu mu am trace kon trace waaw bu mu am taraas waaye téere bi bu doon àttewu buñ ko doon àttewoo te waxuma àttewoo rek ñu jël ko naan dañ koy àttewoo mais nit ki ci boppam mooy àttewoo téere bi ci boppam avant tout hmm? mooy yow téere bi defar la te loolu même bu la amul ñu àttewoo ko fële yow mën nga àttewoo téere bi ci sa bopp àttewoo téere bi ci sa bopp loolu mën na nekk su fekkee nit ki mu ngi àttewoo téere bi ci boppam dana jomba jël lu mu moomul waxumaa mu nekk alalu mbooloo xam nga ne sàcc kenn ak sàcc ñaar ak fukk bokkul ak sàcc yi million boo jëlee alaluy million bàkkaar yi million lañ lay bindal bokk la nga jël bàkkaaru kenn wala nga jël alalu kenn téere bi boo ko àttewoo ñu àttewoo téere bi gis nit ñi la dénk ak ñàkk leen a gis ngay yemale ndax wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mooy nekk ci yow sunu borom mi ngi naan la maa maa la gën a jege gaañi yow sa bopp sax maa la gën a jege sa bopp waxuma gaañi dellu naan la yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allah ndax wa huwa maahum is yubayituuna maa laa yarda min alqawl nit ñi ngay nëbbu mais man mënoomaa nëbbu ndax bi ngay yéenee ne suba fa yéene naa def détournement yéene jooju maag yow a ko bokk fanaanoo kon bu téere bi àttewoo ci yow da nga jomba yeewu ne yaa ngi jël alalu mbooloo waaye tey xoolal rek li ñuy jooy lépp ñi àttewoowul téere benn ko teg da ngay nekk ak Maxtaar Saar fii ci koñ bi nga xam ko mu xam la yéen a bokk juddu yéen a doon futbalandoo fii doon naanandoo ataaya fii ci koñ bi yéen a jàngandoo école fii yéen a amandoo diplôme yéen a demandoo université nga del fii Louga ubbi sa benn multi service fii di góor góorlu wala ñu jël la fii ci benn euh, bureau nga nekk fa amoo salaire bu weesu téeméeri junni liggéey nga ñaar fukki at benn R plus 1 mënoo ko am sa morom mii jóge fi dem am fu jaar fi gaa ñii jaar di tàccoo ko coow tàccoo ko coow tàccoo ko coow ba waayam falu xëy dénk ko post un an lay dawal mu romb la oto buy jar juróom benn fukki million tabax immeuble cinq cent million fu mu ko jëlee fu mu ko jëlee du liggéeyu ndeyam kat ñaan sa liggéeyu ndey ndaw liggéey bu bon liggéeyu ndey joo xam ne alalu mbooloo la lay jural jël ko ndaw liggéey bu bon te loolu léeg-léeg day nekk ci pénc mi te li ko indi bokk na ci ñàkk àttewoo téere bi ci sunu bopp ñàkk ko àttewoo ci pénc mi mbokk yi alquranul karim ku mu nekk ci yow di nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla ci fàddu dañuy ragal yàlla ci fàddu ragal yàlla ci fàddu mooy rek bu la kenn gisul nga bàyyi xel yàlla ndax yàlla mënoo koo fàddu te mënul fàddu tamit ci yow waaye fu la fu la kenn giseewul nga xam ne yàlla mi ngi lay gis téere bi boo ko àtte woo da nga jomma njaaloo ndax boo demee ba bëgg koo def di nga xam ne yàlla mi ngi fi waaja dafa am ndaw si ñëw di ko di soxla mu ne ko mën naa la koo fajal à condition nga yombalal ma sa bopp ndaw si ne ko dee wuute koo ma ko gënal mu dem ba jëmmi jamono soxla bi gën ko njat mu lijjanti lijjanti mu të mu ñëwati ca kam ko diisoo ne ko teeg maa suturaal nga dimbale ma ci sama soxla bi ngir yàlla mu ne ko la ma la waxoon ba tey laa lay wax à condition nga yombalal ma sa bopp ndaw si bi mu demee ba ñàkk pexe ci la ñëw nangul ko loolu waaja tëj buntu kër gi tëj buntu peron bi bi mu tëj buntu kër gi taxaw na xool ci mbedd mi ndeyjoor ak càmmooñ ba xelam dal mu tëj dugg ci biir kër gi xool tëj buntu peron bi dugg ci biir néegam tëj ndaw si mi ngi koy bàyyi xel ne waa ji mi ngi am ñu muy bàyyi xel ndax gisuñ leenam déet bi ñemee ba ñoom ñaar rek ñu wéet ci néeg bi mu ne ko léegi moom xanaa fii kenn nekku fi li ma bëgg yëpp war naa yomb mu ne ko daa am ku des génne ko néeg bi waa ji ne xëfet xoolaat nday joor càmmooñ ko man ku nekk fii ci néeg bi man maag yow rek a fi nekk mu ne ko am na ku nu ñetteel fexeel ba mu génn néeg bi mu ne ko ku nu ñetteel kumu mu ne ko boroom asamaan ak suuf borom bët bu rëy bi mu ngi ci néeg bi génn fexeel ba mu génn néeg bi rekk ma yombalal la sama bopp waa ji jug solaat yéreem yëkkati lu ëpp li ko ndaw si sàkk woon ci moom daldi ko ko jox tàmbari nag di xalaat yàlla mi ko gis ci waxtu woowu mbaa merewu ko muy tuub waxtu woowu mu amee xalaat boobu diggante boobu yàlla di ko gis mbaa merewu ko ndaw si mu ngi doon appliquer téere bi ci boppam mais waa ji appliquer gul téere bi ci boppam ndaw si mi ngi doon dund alquran mais waa ji dundagul woon alquran xam nga léeg nga dégg baatu dund alquran ak sunna sama mbokk yi oustaz xalifa di joteel lu bari dund alquran ak sunna du wax dañ koy jëf waaye ñun ñooy dund alquran ak sunna te ba léegi bàyyi woo sos bàyyiwoo woo fen bàyyi jëw bàyyiwoo jaxase aw nit bàyyi woo lekk alal juñ la dénk alal ju lewul bàyyiwoo bàyyiwoo foo tollu naan maa ngi dund téere bi di dund sunna si dundagoo ko téere bi ku ko dund dañ lay wax ne yaa ngi koy dund mais doo wax ne dama koy dund Cheikh Al Hadj Malick taxawutoon fenn naan maay dund téere bi déedéet waaye daf ko dund ba ba téere bi làgg ci ay cëram ñépp seedeel ko ko kon téere bi nañ ko jàppaat nañ ko fonkat te xam ne yàlla sunu borom bu amee njaboot ci kaw suuf ñi jàng téereem bi la anas ibnu malik nee na yonent bi sallallahu wa sallam nee na inna lillahi taala ahliin min annaas qaalu ya rasulallah man hum qaala hum ahlullah hum ahlul quran wa xaasatu yàlla am na ñooñ ci kaw suuf ñu ne ko ñoo ñumu mu ne mooy ñi jàng alquraanul karim ñooñu ñooy njabootu yàlla te ñoom la yàlla jagool boppam ñoom la yàlla féetool ñoom la yàlla xaritool mbokk nañu fonk téere bi buñ ko dundee jëfe ko jàng ko sellal ko bu ëllëgee yowmal qiyaam bu nu mànkelee téere bi dana ñëw taxaw mottalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iqra'u alqur'ana fa innahu yati shafian li ashaabi na jàng alqur'an ndax ëllëg yowm alqiyaam téere bi day ñëw di ràmmu boroom dana fekk ku ku mànkele téere bi ñëw motti mottalil la danga gis koo xam ne def na ay bàkkaar def na yiw ëllëg ñu koy peeseel ay jëfam jëf yu bon yi dem ba nar wat jëf yu baax yi waaye alquranul karim jam doon jàng jamu bëggoon jam doon jàngaloo njabootam jëm doon dund moo tax mu taxaw ëllëg mu naree cóolle solal ko rob bu avocat peladeel ko ba jëfam yu baax yi ëpp jëf yu bon ya ñu jël ko yóbbu ko àjjana yonent bi nee na jàng leen téere bi jàngal leen ko seen njaboot ndax ëllëg day doon sa avocat ci kanamu sunu borom tabaaraka wa taala yow mi jàng téere bi waxuma dugg àjjana kese de mais biir àjjana ngay nekk di saata gaay biir àjjana ngay nekk ñuy yokk say garaat biir àjjana ngay nekk ñuy yéegal say maqaam abdullah ibnu umar radiallahu taala anhu nee na sallallahu alayhi wa li saaxibi alqur'ani iqra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilaka inda axiri ayatin taqra'uha xale yi lii ñu def ni di jàng di mokkal ak am solo jëmmi jàng gi nga ne la man ko waaye ki la ko gën a mokkal yowmal qiyaam moo lay gën a kawe daraja ca biir àjjana ibnu xajar al haytami ci téeram bi mu tuddee alfataawa alxadithiya mi nga fay wax ne xadis bi yenent bi wax ne ëllëg yowmal xiyaam dañuy wax ki jàngoon alquran ne ko ajjanaa ngoog duggal mu dugg biir àjjana kontaan naan waaw fii neex na te yaatu ñu ne ko sa kër a ngoog demal nga dugg mu dugg ci kër gi naan tabaarakallah kër gi moom yaatu na ñu naan ko yéegal di jàng fu sa mokkal yem fa la sa immeuble di yem yéegal di jàng fu sa mokkal yam fa la sa immeuble yem ku la gënoon a mokkal yowmal xiyaam moo lay gën a kawe immeuble biir aljana yow mi mokkaloon xul walaa waxat ak fa naa si R plus 3 rek ngay am xul wa fa naa si nga mokkal R plus 3 ku mokkal tabat am S plus 4 tabat ba si tabat yadaa ba si ah izaa jaa nasrullaahi si am R plus 5 xul yaayul kaafiruun kaafiruun R plus ah 6 ina ataynaaka al kawsara ba naa si R plus maun R R plus Quraysh R plus alam tara R plus ah ki mokkal kaamil bi yëpp R plus 114 allahu akbar allahu akbar ku la gënoon a mokkal téere bi ëllëg nii ngay toogee di ko seen ndeysaan di ko ñee naan xoolal diw mu toog naan ndeysaan xoolal diw moom ne ndeysaan ñett ñett saar rek la mokkoon nga mokkaloon nga koy séenu mel ne kuy séenu piccum xoob mu nekk ci asamaan moo tax Ibnu Hajar al Haytami ne li ñuy wax ci téere bi nekkul jëmmi maanaam jëmmi jàng téere bi mu ne foofu ñépp a ci yam ñëpp yam ci jëmmu jàng gi waaye ngëneel li ñuy wax fi mu nekk mi ngi ci jëmmi mokkal gi ki nga xam ne moo gënoon a mokkal moom mi gënoon a mokkal mooy gën a kawe dëkkuwaay ca biir àjjal mbokk yi téere bi nañ ko fonk nañ ko jàng jàngal ko sunu njaboot maam borom Touba dafa am jenn waxam ju bu wax ci masaalik te toxalee ko ci téere ña ko jiitu woon woy ko ne wa xaytuma yubasmalu sabiyu fi maktabin yuktabu lahu laliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatun min naarihi faltaalamu mu ne ku jël sa doom yóbbu ca daara ja ñu dalal ko alquraan bismillahi rahmani rahim yéen parents yi déglu leen yéen parents yi yéen woy juru ndongo yi déglu leen yéen ñi jël seen doom indil Oustaz xalifa ngir mu jàngal ko alquran dégg leen nettali bu neex bii boo jëlee sa doom yóbbu ca daara ja ñu dalal ko bismillahi rahmaani rahim loolu rek bismillahi rahmaani rahim sàkko ko ne ko neel bismillahi rahmaani rahim xale bi ne bismillahi rahmaani rahim wala ñu ne ko neel baa mu ne baa neel siin mu ne siin neel mimara mu ne mimara liif laam-laam haza liif laam raa xaalonku miim liif gu aj nunara liif laam raa xaalonku yaa mimara ca njànginu mag ña ndeysaan ah mi ngi xaw mi ngi xaw a ah, waaye aka am solo yàlla ñu leen yàlla fayal xoolal xoolal xoolal arab bu nu wolofeel boobu waaw saat laam yanara xaalonku yaasin deel nun lif gu dog miim xaadam dellu miim deel <laughs> waaw saat waaw saat xaadam dellu xaasaxiir yarut yarut <laughs> sa doom rekk nga yóbbu ko ñu jàngal ko baa ba ci mimara gi ci raxiim mu ne bu loolu di mat kàddu googu buy daanu nga am laissez-passer aljana yow waajur wi yaay jeeg baay ji sëriñ daara bi am laissez aljana ndongo bi am laissez-passer aljana ci bismillaahi rahmaani rahim sërif Yunus bu Bangeer moo dëggal nettali boobu ci teste boppam daf ko teste ba gis ne lu wér la ndax nee na daf ko jàngoon ci téere yi gëm ko waaye ak wéram mosu koo gis ku ko essayé waaye moom moo ko teste sërif Yunus sëtu yenent bi la nekkoon ca Bangeer ca wetu Casamance Cheikhul Hadj Abdoul Aziz xasida bi mujj bind di def tawasul di ñaan jàmm ci Casamance ci moom la jaare tawasul ci barke maamam ak barkeem wa bil waliyil aarifil bangeeri yunusana zilmansibil kabiri ibnu rasuli mustafa adnaani xalifatu cheikh bila buhtaani sërif yunus boobu muy tawasul ci barkeem ak barke maamam dafa am menn mbokk mu nekkoon foofa mu dëkkoon ca bangeer yoroon ay jur ay nagaki xaraki bëy bu leen daan sàmm day dugg ci toolu jàmbur yi la jur yi di dugg waaye kenn ñemewu ko woon ndax dafa bari woon gàllaaj te gàllaaj yi xor lool ñaareel ku ñëwaan kalaame ko walla nga wax ci wax ju kawe boo sàgganul doo ko fekkee mujj gi ñépp ragal ko kum yàq sa tool doo ko yóbbu ci yoon doo ko kaas doo wax dara da muñ rekk bàyyi koo yàlla xam nga loolu tooñ la mu nekk ci loolu ba faatu bi mu faatoo ñu yóbbu ko ca armeel ya gannaaw bi ñu ko sangee sàng ko jullee ko yóbbu ca armeel ya suul waaye heure bu ñu ko suulee ba wane ginnaaw rek suuf si gedd ko ñu daldi ñëwaat gasaat defaraat suul bu ñu ko suulee defi dog ñaan bu ñu wanee ginnaaw dañuy gestu rek seen ko ci kaw bàmmeel bi daanaka ci loolu lañ xaw a yendu mujj gi ñu jaaxle ñëw nañ wàcce kaamil dog ju dul jeex ñu def ko lu ne ñu def ko waaye heure bu ñu suulee ba wane ginnaaw rek gisaat ko ci kaw suuf si ah bi nu jaaxlee li arab bi di wax ne buum bu dangee dañ ko yeew ci bopp kuy ñu ne nañ dem ci shérif Yunus ñu yeggee ko ko mu ñaan ci barke maamam xëy na yàlla ruus maamam ba suturaal mbokk mi biñ demee wax ko ko mu laaj leen lu mu doon toggoo bi muy dund ñu wax ko li mu doon toggoo yépp ci juróom nag wax dëgg yu bari yi mu ci doon def mu ne loolu màndargam texee di la day wane ne àq jooju mu yoraloon nit ñi loolu la ko yàlla na ma topp te su ko yóbbuwaalee yomal xiyaam suñ borom dana ko dugg ñu ne ko ah waaw nga ñaanal ko yàlla même loolu bu ko yàllay réglé ak moom après mu suturaal ko rek suuf si téye jëmmam sëriñ Yunus ne tekk ba mu yàgg mu ne waaw man am na lu téere yi waxoon am naa occasion pour tester ko téere yi newoon nañu ku am doom yóbbu ko ca daara ja ñu jàngal ko bismillaahi rahmaani rahiim nga dem àjjana xaaral ma jéem a testé loolu mu ne si gét ne leen ndax am na doom ju toll ci jàng ñu ne ko waa bàyyi na fi doom mu ne indi leen ma ko ñu indil ko jenn doomam ju góor joo xam ne mësu ko yóbbu mu jàng ca lam nekkoon rek la doom ji nekk xëy dem sàmmi sërif Yunus jël aliwa jël xalimaam sëpp ci daa ji bind ci bismillaahi rahmaani rahim sukkuloo xale bi xale bi sukk mu jël aliwa ji teg ko ci poojam daldi ko ko sax ne ko neel bismi mu ne bismi neel laahi mu ne laahi rahmaani rahmaani rahimi rahimi benn yoon la ko ko sax ne dem leen ngeen gasaar ngeen suul ko ba xam ñu delluwaat ci armée la ñi ngi ko fekk ma nga tegu ca kaw bàmmeelam ñu gasaat bàmmeel bi jekk-jekkalaat suul ko wane ginnaaw mu ne degg ca bàmmeel ba suuf si geddatu ñu ñëw ci sërif Yunus wax ko ko mu ne iskay dafa am lu ma gisoon ci téere yi doon seet ndax wér naam déet tey laa xam ne wér na mooy dañuy wax ne ku jël sa doom yóbbu ko ca daara ja ñu dalal ko alquranul karim yow woy jur wi sëriñu daara bi ndongo ba yàlla xaraamal na seen yaram safara mbokk yi lii jarul jël sa doom yóbbu ca daara ja mu def fa fanweeri at jar na ko jaru ko xam nga mbërum làmb yi lan la ñuy wax bu ñu daanelee seen morom dañuy daw wutali reporter bi ne ko per Bekaay jamono yooyu laa ko daan wax boobu père Bekaay reporté defe naa ba léegi mi ngi reporté làmbu ji ah, père Bekaay ponkal mu jël moromam tëgg koy kurfañ yóbbu ko ardo deret ji tuuru mu kuusu taxaw yëkkati moromam ne ko dégg ci suuf daw utali micro ba jooy ne ko père Bécaye damaa sonn ci entraînement yi li ma tax a sonn mooy dama bëgg yóbbu sama yaay màkka moom yóbbu màkka yaayam moo ko tax daj coono bi yépp nee na ma ne ko non am na lu gën a sedd li ngay def kaay ma wax la nooy def yóbbu sa yaay àjjana waxuma ak màkk boole ci sa baay mhm. ah bëri na ko aj ba noppi te ajam nanguwul te alxajjul mabruur laysa lahu jadaawun ilal janna aj gu nu nangu lanu wax ajjanaay fayam mais bu nanguwul luy fayam amul fay kenn du ko fay ma ne ko kon li gën a sedd mooy nga dem jàngi téere bi rek yóbbu sa yaay ak sa pàpp yëpp aljana looloo gën a sedd looloo gën a sedd foofu entraînement du la ci fekk ñu dóor lay kurfañ du la ci fekk ñu yóbbu la ardo du la ci fekk waaye lu sedd sol yére yu set dox dox bu yiw dem ca daara ji yóbbu fa sa doom wala nga yóbbu fa sa bopp am ëllëg sens bu toll na ñu dugal la aljana yonent bi sallallahu alayhi wa nee na law jucila alqur'aanu fi ihaamin law jucila alqur'aanu fi ihaamin thumma ulqiya fi nnaari maxtaraqa thumma ulqiya fi nnaari maxtaraqa sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nu jëloon alqur'aan def ko ci der ihaab ihaab mooy der buñ jëloon alqur'aan def ko ci der sànni ko ci safara der ba du lakk buñ jëloon alquran def ko ci der sànni ko ci safara der ba lakk abul fadli arrazi ne dañoo laaj yazid ibnu umar dañoo jëlee ci yazid ibnu umar mu ne dañu laaj asma yi ne ko xadis boobu lan lay wundu buñ jëloon alquran def ko ci der sànni ko ci safara du lakk loolu lu muy tekki mu ne mooy bu nu jëloon alxuraan xamal ko jullit ba mu xam ko jàngal ko ko ba mu mokkal ko ëllëg yowmal qiyaam même buñ jëloon jullit boobu dugal ko biir safara yi du lakk bu nu jëloon jullit def ci moom alquranul karim ba mokkal ko même ëllëg yomal xiyaam buñ ko jëloon dugal ko ci safara sax du lakk mu ne loolu la yenent bi wax ne bu ñu jëloon alquran def ko ci der sànni ko ci safara safara sax du ko lakk mbokki defe naa kenn ci ñun ñemewul tàngoor waxumaak safara tàngoor rek suñ mbokk ustaas maa ngi gis léegi biñ nekkee ci naaj bi ndeysaan ñu ñàkk sonn lool ba jigéen ñi signalé naan nañ leen fa jëlee ndax laysa lil jildi raqiq sabrun ala alxariq la cheikhul xaaj malik wax laysa lil jildi raqiq sabrun ala alxariq maam Maodo nee na der bi der bi dafa woyof moo tax mënul muñ lakk beren almet bu ñu taal ba mu fay rek bu ñu koy teg ci sa der ngay tëb unduru ila jadaikum min ashawkati wa ramda laa ilaha illa allah Cheikh Al mu ne xoola rek bu ñu jëlee dëkk ne la ko dëbbuus ni nga naan pëccët jóg dëkk rek dëkk buñ la ko jamee réaction bi ngay def gëlu safara buñ ko jëlee safara su tàkk ba giim ba fay doom ba nëbbu ko imaginel waxuma muy tàkk de mais tàkk na ba nga xam ne dem na ba giim nekk gël noonu gël boobu rek buñ ko jëlee ñu teg ko sa yaram xoolal réaction bi ngay def imagineel safara su mag sa ëllëg yomal xiyam imaginel safara su mag sa luñ ne la day tax day tax nga mucc sa war nga caa sonn te góorlu ca mbokk yi safara tàng na safara tàng na de yenent bi nee na tàngoor bii min fay xij jahannam nee na bu ngeen dee julli na ngeen kerlu ndax tàngoor wii ñépp naan dafa tàng mu ne safaraay nooyi rek ngelawul safara mooy ëpp ngelaw li safara la la malaaka yi sànni nii ngelaw li muy ëpp ngelaw loolu moo tax ñuy ut ay kilim ak i ventilo ki wantaay ngelawal safara soosa ana su mag téere yi nee nañu maam aadama bi mu soxlaa safara ndax énergie dafa bokk ci dund nit ñun ñëpp dañoo soxla safara su këriñ këriñ amul gaz amul dana métti lool kon dañoo soxla énergie bi ko yàlla wàccee ci kaw suuf mu yëgle yëg ne dafa soxla énergie dafa woo Jibril ne ko dama soxla énergie safara Jibril ne ko lu mel lu toll nan laa la ciy indil mu ne ko yaa xam nu muy toll man xaw ma mu ne ko teemaa demandé ndax safara dafa tàng de safara si ma xam su ma ko indee fii doo ko jëriñoo xanaa ma dem ci yàlla ne ko lu toll ne benn xal nga ci soxla mu dem ci sunu borom ne ko aadama nee na dafa soxla lu toll ne benn xal ci safara mu ne ko su ma la joxee benn xal boo ko wàccee ci suuf asamaan si day ruy fekk si suuf si benn xal ci safara buñ ko jëloon indi ko fii ci kaw suuf asamaan benn ba juróom-ñaar dañuy ruy fekk ci suuf si mu ne ko ah teemaa jël kon benn boobu noonu ma xaaj ko fukki xaaj fukkeel bi ma jël ko indi ko mu ne ko su ma la joxee fukkeel boobu boo ko tegee ci kaw suuf suuf si dafay seey asamaan ndox dootul wàccati ci kaw suuf ndox mi nekk ci kaw suuf yépp day jeex ci fukkeelu xaaj bi mu ne kon téema cee jël benn ferñeent benn étincelle mu ne ko waaw loolu dana tane mu ne ko ma dem jël yóbbu mu ne ko déet attention étincelle boobu boo ko jëlee yóbbu ko ci kaw suuf suuf si dootul saxat ci gàncax même bu ndox wàccee suuf si dootul saxati mu ne ko nu may def mu ne ko da ngay jël étincelle boobu nga dem dugal ko ci juróom ñaar fukki junniy géej wàññi tàngoor wi soog di ko yóbbul aadama ndax yéen ak may dégg pour ngeen xam njëriñu téere bi ngeen di jàng di ko jàngal seeni doom safara laay wax de tàngoor wi tàngoor wi ni mu toll Jibril daal di def noonu dem jël benn ferñeent dugal ko ci benn géej ñaar ba mat soixante-dix mille géej ngir wàññi tàngoor wi muy dem di ko yóbbul aadama suñ borom ne ko boo ko tegee kër aadama mu tàkk àndal ak moom ba ca àll ba montagne ya gën a kawe nga tegal ko ko fa mu seet lum ci soxla pour jël ko yóbbu këram Jibril yegg ne aadama yóbbante bi ñëw na mais sa kër bu ma ko fiy teg muy lakk ni ñuy def mooy nañ dem ba àll ba ñu xool montagne ba gën a kawe ma tegal la ko jibril aadama jibriil mamaadama aadama ñu yegg ba ci àll bi ñuy dox di romb montagne ba montagne ba gën a rëy ca montagne jibril ne ko soril mu sori ay kilomètres mu jël étincelle ba moom jibril ndax yàlla may na jibril pouvoir bu toll ne safara moom du ko làkk moo mën na koo téye te du ko mu tegal ko aadama ci kaw montagne bi mu ko tegee aadama poussière lay seen poussière ak saxaar ferñeent bi dafa dugg ci biir montagne bi ba léegi téere yi nee nañu mooy volcan yi tàkk ci suuf si volcan yi volcan yi nga xam da ngay toog ba mu yàgg safara am fu mu yeewoo ñu ne dafa am benn volkan bu fa yeewu nga xam ne safara dong lay doon di raafal di dem nee nañ ñi ngi bàyyeekoo ci ferñeent booba ca jamonoy maam aadama te dañoo wàññi degré ja juróom ñaar fukki junniy géej xam lan moo ci doon suñu safara si ñu jëriñoo aadama dafa bàyyee bàyyee bàyyi ba pënd ba poussière ba jaxasoo ca loolu la dem am lum ca tibb yóbbu këram pënd boobu poussière bi jaxasoo mooy suñ safara si gaa yi bu mag ba nu mel ah hmm. te yàlla nee na danaa toog moom yàgg ëllëg ma ne jahannama ndax fees nga wa taqulu hal min mu naan yàlla dese naay palaas yàlla day rokkas jahannama di ko rokkas ba naan ko jahannama fees naa mu ne noo des na des nay palaas laa ilaha illallah lu fay tax mucc gars yi mat naa góorgóorlu de doom ju am diplôme doom ju am diine ko gën tey waajur yi bari ñi ngi xinte woo sama doom ingénieur nangam la docteur nangam la professeur la nangam nangam wallahi sama doom mokkal na alxuraan a ko gën di ndam ku am doom ju mokkal téere bii yaa am doom ju tekki dañuy wax da tekki tekki définition définition tekki ba léegi man ni ma ko jàppeek ñi ko ñu bari jàppee du benn lan mooy tekki ah tekki mooy lan non nañ wax rek senegal lu tuddee ko tekki mooy ko ku am alal soo tabaxee kër am oto bari xaalis di ko maye dañ naan doomam ji de tekki na loolay tekki ah kon baax na banque bi fii Louga ay agresseur buñ bàyyee ba guddi ñu ñëw toj ko fekk fay milliards yóbbu tabax ci kër jëndi oto kon tekki nañ tekkee am xaalis ñu toj banque bi kon tekki nañ waaye tekkee dee tax ñu def ko tekkee di moo tax ñu def loolu xam nga luy jëggi dëggi tekki mooy njub ku am doom ju jub tekki na te téere bi day jubalaati inna hada al qurana yahdi lillati ak aqwam ja mooy dellu siwaat téere bi day jubalaate kon boo amee doom mu jàng téere bi am nga doom ju tekki téere bi boo ko jàngee di ko jëfe tekki nga donte amoo lu suukar kafe yamurru shahrun awi shahraani min zamanin walam tara al ayna fi l min adami min xadami cheikh alhaaj malik nee na yenent bi daan na toog deux mois këram cin du fa tàkk yamurru shahrun aw shahraani min damani walam tara al ayna fi l abyaati min xadami weer ba ñaari weer cheikh alhaaj malik nee na kër yenent bi cin daawu fa tàkk ñu laaj sittuna aïcha ne lan ngeen daan dundee mu ne al aswadaani at tamru wal ma ndox ak tàndarma rek lañ doon dunde dañuy lekk tàndarma naa ndox tëdd deux mois kër yenent bi xanaa kon dañoo nar a wax ne kooku ñemewuma ko wax di yenent bi xanaa dañoo bëgg a wax ne kon hmm. waaye moo gën a tekki ñi tekki ñépp kon tekki ndax ci am am la kon nañu définiraat moowu tekki nañ ko definiiraat lan mooy tekki mbokk yi alxuraan day yëkkati nit alxuraan day yëkkati nit danga gis ko dajeeg ustaas xalifa mbuub futti mbaxanaam si mii dàllam làmb poosam jox ko téere bee ko ko may du xalifa la tudd du mbuub la sant waaye téere bi mooy fekk nit yëkkati ko ca kaw la Shawqi naan al ilmu al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yahdimu baytal izzi wa sharafi al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu da gis kër goo xam ne démb kenn bàyyiwu leen woon xel waaye xam-xama fa dugg tax ñépp di leen bàyyi xel waaye réer kër gu mu dugg doonte dañoo yëkkatiku woon dañuy dellu ginnaaw rek tey lan moo tax ñuy tudd suñ kër sëriñ si si ngi fi woon di te daawuñ tudd si ñu ne iskay mbàkkee ngi fi woon te daawuñ tudd mbàkkee mbàkkee ñu ne iska iskay a fi jiitu Seex al Hajji te daawuñ tudd taal ñu ne iskay waaye lan moo may sant yooyu iskay téere bee alquran la alquran la Seydina Omar ibnul Xataab dafa am benn gouverneur bu mu fal màkk ñëw di ko seet mu dajeek moom asfaan asfaan fu soriwul kaaba gi la ay quatre-vingts lay tolloo kaaba gi asfaan bi mu dajeeg moom ne ko waaw ana kan nga fal mu gérer la lu jëm ci li wër màkka mu nekk fa sa gouverneur mu ne ko ki ma fa fal mi ngi tudd ibnu abza la tudd ibnu abza laa fa mu ne ko ibnu abza ci sunu jaam yi la ci sunu jaamu dëkk yi kooku laa jël kenn fal ko mu jiite gox boobu noonu ci sunu jaam yi la bokk Seydina Omar ne ko lan lan moo tax ngay fal jaam muy jiitee gor déglu leen lu tax ngay fal jaam muy jiitee gor mu ne ko innahu qaari'un li kitaabillahi azza wa jalla wa innahu aalimun bil faraa'idi mu ne ko téere yàlla bi daf koo jàng ba mokkal ko te ràññee na ni ñuy toppe yàlla lépp xam na ko looloo tax ma fal ko ngir mu jiiti Seydina Omar ne ko iskay déggoon naa yenent bi sallallahu alayhi mu ne inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaman wa yadau bihi aaxarin yàlla dana yëkkatee ci téere bi aw nit waaye tamit dana ci wàccee aw nit dana falee ci téere bi aw nit waaye tamit dana ci follee aw nit tey bu ñu ne sëriñ Babacar si ñu ne iska yi iska yam googu téere bi la de bu ñu ne Cheikh Al Hadj ñu ne iska yi fi tasu iska yam googu téere bi la bu ñu sëriñ tuubaa ñu ne iskay bu ñu ne ñu ne iskay akay ah, inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaman wa yadau bihi axarin mbokk yi sengoor sengoor ak sëriñ fàllu ak sëriñ babacar si ñoo bokkoon jamono yëg ngeen ne sengoor a leen gënoon a siiw ci àdduna bi yëg ngeen loolu Senghor leen gënoon a siiw ci àdduna bi ci seen jamono waaye cey téere bi téere bee dugg ci sëriñ Babacar ak sëriñ Fàllu génn ci Senghor téere bi jamonoy dox ba tey sëñ Ba sëñ Babacar ci biir suuf sëriñ Fàllu ci biir suuf président Senghor ci biir suuf cay téere bi téere bee tax bàmmeelu sëñ Fàllu ñu koy ran bàmmeelu sëñ Babacar ñu koy ran bàmmeelu sengoor ranwunu ko cay téere bi téere bee ngi jo sëñ Babacar bàmmeel a ngi jo bàmmeelam a ngi joxe dépense bàmmeelu sëriñ Fàlloo ngi joxe dépense bàmmeelu sengoor dañ fay joxe dépense dañuy dépenser bàmmeel bi pour ñu toppatoo ko bàmmeel buy joxe dépense ak bàmmeel bu ñuy jox dépense du benn téere bee fi jaar téere bee fi jaar mbokk yi xadis bi may jeexalee ci xaddis yooyu xadis bu raglu la ku dégg xadis bi boo ñibbee boo jàngutoon alxuraan demal nga jàngi ko xadis bi wolof nee na jàng du jigéen ñi jàng du ah jàng du wees lu tax ñu weesale ko suñ bopp lu ñuy def ba mu tee ñoo jàng ah ci laa doon ñëw jàngee wees jàngi jërëjëf sëñ Fallou Cissé ñu jàngaloon loolu jàng ak jàngi mu ne jàng du wees mais jàngi dana wees lu nu jàpp ba teenoo jàng lan moo jàpp ba jàng da gis koo xam ne nii ut na téléphone jàng na ba xam nan la ñuy waxee whatsapp application whatsapp bi xàmme na ko te mënagul liir nag nee na xàmme na application facebook bi li ko wan ne lii mooy facebook lii mooy whatsapp lii mooy tiktok ba mu xàmme ko ci téléphone su ko jéemoon a xàmmee baa siin mimara dana ko xàmme ku mën a xàmmee ci téléphone am whatsapp ne bii la bés muy whatsapp facebook bii la nga bés muy facebook tiktok bii la nga bés muy tiktok baa siin mimara ko gën a neex a xàmme mbokk yi xadis bu raglu la ay waay ku ko dégg jàngoo woon jéem a la jàng ah ndeysaan da gis yaay yu farlu foofu nag yaayee fi man bàyyi da gis yaay yu farlu daaray meer yi gis naa ko ndakaaru xaw ma yegg na na lugaam déet daaray meer yi mais daaray peer yi ak paay ah man de li ma koy gis bariwul xëy na mu ak si Louga waaye daal sunu yaay daal naay gis ne ndakaaru léeg-léeg nag ñu góor góorlu dem former seen benn petit daayira wala nuñ ko tuddee ut ustaas bu leen di jàngal ndeysaan ba ñenn ña mokkal nañ ca faatiha bu set di ko tajwid mokkali saar di ko tajwid xàmmee faratay njàpp ak faratay julli te loolu gannaaw biñ demee ba nekk mag ci lañ ko jàng waaye fa ñuy jàngee ndeysaan doo fekk papa nekk fa bu dee paawu Dakar moom ñu baal ma du ñëpp nag ñi ñi ñi ma tudd ca ñooñu dong la du ñëpp waaw ña nga ca yooya rek waaw neuf bee ma rey ak douze bee ma gaañ waaw bee ma rey non neuf bee ma rey ma ne ko ba ba ba dix bi suuli la ba dix bi suuli la <laughs> neuf bee ma rey ba dix bi suuli la <laughs> jàng du wees jàngee wees mais jàng du wees te gis nga ki dem ba nekk mag def effort pour jàng coono boobu ngay daj ñaari tuyaaba lañ lay bindal tuyaabay jàng ak tuyaabay coono bi ngay daj ngir jàng mais ku rëy du ko man ku rëy du jàng dangay woyof tooyu du jàng waaye ah man de duma dem sama moroom mu gone yi luy loolu maa ngi rappelé wu ku ma daan mës a jàngal yàgg na mag la mais wallahi kayam la daan gàddu guddi gu nekk mu romb xale yi ñëw jàng si te du ci am benn complex du ci am benn complexe pourquoi xam nga ne yow say farata des na sa alquran mën a goo ci lu bari oustaz xalifa mbuum mi ngi fi oustaz yaa ngi fi disponible nga mën a ñaan benn waxtu ñëw waxtaan ak moom mu may la benn trente minutes ci semaine bi sax baax na nga ñëw di ko jàng téere bi ak ndaw tagg bu rëy ñu ne ndeysaan moom de daan na jàngi alquranul karim gannaaw boo faatoo ñu la koy seede seede gën a ko rëy mënoon na alxuraan ak doon na ko jéem a man te loolu dara weesagul pour nit ki jéem ko man woy wu rafet bi ngay dund nga koy wut doo bàyyi ba ñu la koy wutal innamal maru xadiisun baadahu fa kun xadiisan xasanan liman waa ibnu Durayd nee na ku fi jóge ñu wax ci yow fexe la doon wéy wu rafet balaa nga fay jóge innamal maru xadiisun baadahu ku fi jóge rek wéy ngay doon ku fi jóge aw wéy ngay doon mu ne fexe la doon wéy wu rafet balaa nga fay jóge mbokk yi xadiis bi ku jàng danga am xel mu dal boo ko déggee waaye ay ku mel ni man mën a woon dara ci alquran xadis bi tiit na de xadis bi tiitlu na de xam nga lan la yonent bi wax xam ngeen gent kër gu gent xam ngeen gent lan mooy fu gent ah fu ñu dëkkoon dëkkatuñ fa kër gu gent mooy kër gu ñu abandonné kër goo xam ne nii dañ ko bàyyi kenn dëkkatu fa xëy na kër gi dafa ami rab xëy na ku fa dëkk nit ñi dañuy feebar xëy na nangam ñëpp xëy rek bàyyi kër ga ragal kër gi kër gu gent sallallahu alayhi wa sallam nee na ku benn aaya fanaanul ci sa dënn yaa ngi mel ni kër gu gent dégg naa sëriñ Abba Sall mu fii mu Louga moo daan toog ba mu yàgg mu woo kenn naan ko kay déglu ma ndax mokkal naa faatiha kay déglu ma ndax mokkal naa faatiha sëñ Abbas ak xam-xam mu rëy ba wilaaya ga ak cër ba la mu jàngal ci nit ñu mokkal téere bi waaye mu daan toog ba mu yàgg woo kenn ne ko kay déglu ma ba xam ndax mokkal naa faatiha am déet ndax nun mokkal nañ faatiha ndax nun nun ñépp ndax mokkal nañ faatiha question la ku nekk boo demee nga tëdd ak sa ngegenaay nga waxtaan ak moom ne nu ma def ak faatiha ndax mokkal naa ko gars yi dañ ko wéer ci yàlla baax na rek yàlla de baax na bari na yërmande gis nga ni ñuy wutee sunu àdduna jàng nañ ko ba mokkal ko kenn duñu si nax booy jaay dara ñaar fukk nit jox la téeméer xam nga li nga koy delloo dara du ca manqué dara du ca ëpp moom it xam na ne boo ko delloo dara du ca manqué xanaa lu ca ëpp mu yóbbu mais dara du ca manqué waaw jëflante àdduna ku nekk fexe nga ba kenn mënul nax sa moroom nga bëgg a nax sa boroom bëgg mënoo nax sa moroom bëgg nax sa boroom <laughs> c'est impossible mënul ne góor ga Abdul Karim Ndiaye moo daan wax waxam yu riime ci boroom ak moroom ne nga gis kuy yëggër yëggëri ngir boroomam moroomam du yëggër yëggëri ngir boroomam di jëf ngir moroomam du jëf ngir boroomam di jaamu moroomam du jaamu boroomam ragal moroomam ragalut boroomam noonu la ko toppee ba mu bari mu ne bis dana ñëw sa borom yebal malaak mu gane la malaak mu gane la gan googu Cheikh Al Hadj Malick tuddee dayful mujjutaa fa kayfal xaal isa nazala dayful mujjutaa wa maa lahu qirran illa al arwaax laa ilaha allah fa kayfal xaal isa nazala dayful mujjutaa wa maa lahu qirran ilal larwaax ay fun jëm ay fun jëm bu nu gan ganesee gan goo xam ne loo ko teralee lu dul ruux bëgg ko malakul mawti bu ganesee sa kër teraanga joo ko teralee lu dul jox ko sa ruux bëggul mu ne gan googu ñëw ganesi la rocc sa ruux yóbbu ñu futti la ba nga mel ni nen sang la ba nga mel ni butéel sàng la ba nga mel ne suppame takk la ba nga mel ni sayu ñax ñu yenu la di la yóbbul sa borom say moroom di la yóbbul sa borom yaa ngi doon def ngir ñooñu de ñooña tey ñooñoo la jàpp futti la sang la sang la yanu la sa moroom yi di la yóbbul sa boroom ñu ne ñu dem ba ca àll ba ba ca àll ba du ci biir kër gi lañ lay suul du ci diggu koñ bi du ci marché bi xoola rek fañ def néew yi fañ leen def bokkatu leen lañ leen wax bokkatu leen dañ leen yóbbu kër bokkatu leen suul leen suuluñ leen marché bi du ci hôpital bi du ci kër gi du ci mbedd mi kër bokkatu leen nga xam ne léeg-léeg fañ leen di yóbbu boo génnul dëkk bi doo leen gis ba du leen bàyyi xel say moroom ay jëflanteeg yow noonu yóbbu la kër bokkatu leen gas ba mu xóot ñu génnee suuf si dugal na ci biir suuf delloo ci sa kaw suuf nee na wan la ginnaaw mu ne keroog danga xam ne sa moroom du sa boroom te sa boroom du sa moroom keroog da nga xam ne sa moroom du sa sa boroom du sa moroom gaa yi nañu ragal yàlla nanu bàyyi xel yàlla ku jàngul benn aayay alquraanul karim laa ilaha illa am doom woo imaam dafa mel ne léeg dañuy théâtre ak yàlla mel dañuy jouer théâtre ak suñu borom am doo woo imaam ne ko bindal ma toqantal imaam bind toqantal lu mu bindee toqantal ndax sidee rama ak mamadou bintu imaam bu jëloon benn papier ki nga yebal mu jox ko ko mu dem gis ci a b c d e, ba z mu ne boo demee na ko xooj jox ko xale bi mu naan ko boo koy ubbi ne imaam damaa yeb santuma ko woon lii waaye loo ci gis lu nuroog alxuraan lu mu mën ci doon sa xel dal na ne mbindum arab rek Hmm, yàllaa ngi toog di observer ah kon yow nii nga gëmee sama téere bi nee nga ba sa doom bu juddoo bëgg nga mu jiitu ci moom maa ngi lay xaar ci sa doom juróom-ñeent fan nga ne woo leen imaam imaam ñëw ñu jël ko jël xale bi uufal ko mu nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci nopp càmmoñ bi ne tuddee nañ ko diw ñu tër gàtt ba rendi imaam jàng saar léemu ko mag ña fa nekk ku ne jàngi saar léemu yàlla ne maa ngi lay xool xale bi yaramam tàng bis nga ne dem leen ci imaam mu may ma saafara yóbbu nañ hôpital ne nañ gisuñ dara te guddi day jooy day tiit ne ma may téere ne ma bindal saafara imaam jël téere yàlla bi bind sa doom takk mu jël téere yàlla bi bind sa doom ñu raayal ko yaramam yàlla ne maa ngi lay xool rek sa doom jooju jaar ak yàlla fii ci téeréem bi mu dem ba toll ci war a jàng téeréem bi nga xañ ko yàlla ne ko yàlla loolu dama la doon nax rek mais gëmuma ko woon sama intérêt bopp laa déggoon ne mi ngi ci moom laa doon jëli jàngi sa téere bi nag gisuma ci avenir ci li ma gis avenir mooy jàngi tubaab xaaral ma bàyyi fi sa téere bi bàyyi fi daara ji yóbbu sama doom sama doom jàngale ko tubaab ndax ci laay gis sama bopp ëllëg ki la ma mën a jëndalee otoo kër yóbbu ma màkk mais gisuma ko ci téere bi trahison la woy jur yi bari dañoo trahir yàlla waaye la Samba Xamaa la doon wax yàlla ko yàlla yërëm mu daan wax ne góor ga xañ na ngóor sa buur ba buur ba xañ na ngóor sa góor ga mhm. góor ga mooy borom kër gi ngóor sa mooy xale bi buur ba mooy yàlla mu ne góor ga di borom kër gi xañ na ngóor sa xale bi buur ba yàlla bi yàlla soxlaa sa doom nga lànk ko ko jox xam nga nu yàlla def day bàyyi ba nga soxla ngóor si mu xañ la ko mu ne buur ba tamit xañ na ngóor sa góor ga ñaata la seen doom jàng ba am ma am teraanga seen papa ñëw seen kër ñu ne ko non papa bu ngay ñëw da nga ma waroon a avertir ah xam nga nu sa doom di def day dem takki koo xam ne moom itamit même soos la góor ga daa xañoon ndaw sa buur ba moom itamit boo fa waree ñëw moom it bu fa papaam waree ñëw nga ne non mais sa papa dafa ma waroon wax dafay ñëw ah wala sa yaay nga ñëw ci kër gi ñu xatal la fa jël néegu gone ya dugal la fa bu ñu xëyee liggéey yi bàyyi la fa nga yeewu jànq bi moo naan la maam loo bëgg ma defaral la ndekki patron nee woon na ma defaral la ndékki boo yeewoo te yow miinoo loolu xamoo loolu lan ngay xëy danga naan sama doom ji ñàkkul dañ koo liggéey may baayam bu wàccee nuyu la nuyu bu sedd dem tëjoog jabaram ci biir néegam bàyyi la ca saal ba nga toog ca télé ba boroom ngor ngor nga borom jom nga nooy def dootoo fa ñëwati bu yàggee ah waa kay buur ba xañ na ngóor sa góor ga waaye boo xañul buur bi ngóor si buur bi du la xañ ngóor si soo xañee ngóor si buur bi buur bi xañ la ngóor si kon mbokk yi defe naa waxtaan wi mën nañ ko tënk foofu ndax du doy ñu xam ne rek penc mi mënul a jag lu dul ne dañoo jàng téere yàlla bi waaye pénc bi mënula jag lu dul ne dañoo appliquer téere yàlla bi maam Cheikh El Hadj nee na sopp nabi yi bari na waaye koo ci jël teg ko ci bëskilu soppu nabi du mat liibar du mat genn wàllu liibar bay mat kilo mënoo ne sopp naa yenent bi fu ko tuddee nga fi tasu bëgg dem ziyaara ji ko te bëggoo alquraanul karim inna alquraana huwa almiisaanu taarifu minhu ma xawayta min al wa sadami cheikh alxaj malik inna alquraana naka alquraan huwa almiisaanu bëgg naa yenent bi ah bëgg naa yeneen si mu ne kaay kaay ñu xool ndax bëgg nga ko ana ñan ñoo sopp yeneenti bi fii na njëkk di seen loxo ma gis gëm naa ko buñ leen ci peesee man ngeen a mat kilo ndax lan yéen a ngi ci jéewu alxuraan jàng ko indi seen doom mu koy jàng waa kay affaire bi lii la li ñaan affaire bi yow la affaire bi alxuraan la du kenn alxuraan la affaire bi alxuraan la kum nekk ci yow ñu naan la affaire bi yow la te dootuñ dëñ naan la affaire bi yow la ba ba nga ba ba yowmal di dikk bëri na ku ñaan fi affaire bi yow la day tëb rek xew yi alquran mooy xewalaate te kum xewale doo xewee ci bàmmeel sax du tax nga xew yi El Hadj Malick mi ma tudd léegi xoolal ba léegi star la mi ngi xew te du ma sa xewi ndax ma nga dugg ca biir yurzaquun yurzaquun bal axyaun inda rabbihim yurzaquun sax alxaaj malik mu ne alquran huwa almiidaanu mooy baskil bi taarifu minhu ci alquran la ñuy xamee maa xawayta li nga làq min al ci ci cofeel wa sadami ak cofeel gu tar li nga ne bëgg naa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu xam ndax dëgg la am déet ci alquran lañ koy seete ku la gën a bëgg alquran moo la gën a bëgg yenent bi sallallahu alayhi ku la gën a fonk alquran moo la gën a fonk yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ku ne la bëgg naa yonent bi te bëggul alquran cofee la mu wérut lu waaye di wuyoo ah lu waaye di wuyoo da koy da koy niru kuy wuyoo bëgg nga yonent bi alquran a ngoog ndax yonent bi moo ne dem naa damay dem mais maa ngi leen fi bàyyil loo xam ne bu ngeen ko jàppee du ngeen réer xadis yi gën a wér wax ko mooy téere yàlla bi la wax ak sunnaam eh, ak ak njabootam njabootam xadis yooyu nag dafa tàmbalee faay léegi dañ naan ak yonent bi ñaar ñi mi fi bàyyee mooy kitaabullaahi wa sunnati xadis yi wér cëng gën a wér xadis yooyu pour nga am ci lu wér da nga ciy dajale yoon yu bare bare bari soog di am kitaabullaahi wa sunnati bu wér mais kitaaballahi wa itirati ahlul bayt xadis yooyu wér cëng nga la def amul yoon wooy jëli pour mu wéral ko yenent bi bi muy faatu dane maa ngi leen fi bàyyil ñaar bu ngeen ci jàppee du ngeen réer téere yàlla bi ak sama njaboot téere yàlla bi ak sama njaboot su ngeen ci jàppee du ngeen réer kon yenent bi nekkatu fi mais téere bi mu ngi kon nañ ko bëgg nañ ko jàng nañ ko jàngal sunu njaboot nañ ko fonk waaye nañu fonk ñi koy jàngale ci lay daanelee yéen parents d'élèves yi bu leen jàpp ne mukk indi ngeen seen doom ci daara ji di fay weer wu dee jàpp ne doy na doyut li may wax nag xalifa waxloowuma ko seex xalifa dama dim xalifa ca ndakaaru yor daara ne moom xam li daaray li li nuy daj dangeen ñëw gis seen doom yi njàng mi neex ngeen naan daara ja macha allah waaye fekk xalifa sonn na te waxu leen ko démb rek dafa am benn parent bu ma woo ne dafa bëgg indi doomam ci daara ji ne ma fay gi ñaata la ma ne ko nangam mu ne doo ko wàññi ma ne ko ceeba ngi yokk diwa ngi yokk location ngi yokk wàññeeguñ ci benn nga bëgg may wàññi man may bëgg a yokku yokkagum nga bi nga sancee daara géem léegi yokkaguma te bi muy sanc daara ja saaku ceeb lam doon jar tey yokku na te yokkagut déglu leen ma bu baax ngeen war a xam ni li ngeen di fay doyut doyut de saaku ceeb euh, ban année la woon nga sancoon daara ji saaku ceeb bu 2018 ak 2022 xam ngeen ne diggante bi saaku ceeb yokku na fi 2018 boo amoon rek ay 12500 yooyu am am non parfumé tey non parfumé fu mu yam ah ah dimbali leen ma commerçant bu fi ne ne ma dimbale non benn saako la saako ceeb benn saako waxuma waxaguma suukar ñëwaguma suukar seize mille quatorze quinze seize ah yokk na te ay saakuy saaku la daara ji jeexal laataa weer ay saakuy saaku léeg-léeg bu leen toggkat yi ne euh, ceeb bi jeex na bu fekkoon oustaz yor dog dog bi du sellati diw ñëw diw diw 2008 ñaata la woon 20 litres bi ay mille yooyu cinq 14500 léegi mi ngi ci mille ndakaaru xawma ma Louga nag ah juróomi junne yu manqué lan. xool leen jéego yi mu fi daw jéego yi mu fi jéggi te ba léegi xalifa yokkut suukar ñëw ba léegi yokkut fóotum xale yi ñëw ndox nag danga am teen looy xel li dañ lay may facture bi te bu njëkk SD SD moo fi léegi ñu fi ne seen mooy seen wooy tey ñu dee noonu laa koy tuddee ndakaaru seen wooy tey ñu dee waaw seen o wooy tey ñu dee nee naa dañu ko waroon tuddee sunu o waaye bañ ko tuddee seen lañ sonn seen o ñan du sunu facture yam daan jot tey yokku na plus nag ordonnance yuñ jul yëgal parents yi xalifaa ngi ci loxo bàyyi leen xel li may wax da daa koy dund daa koy dund de da ngay faj bay sonn doo wax benn parent dara ndax benn ordonnance su cinq mille ak six mille da naan jaru ko bu weesu wut foofu danga koy jéem a seere waaye yow mën nga comprendre sa doom nekk ci daara ji un an te feebarut ñun parents yi ma dugal ci sama bopp ndax parent d'élève laa ma ne ci genn wet ñun dañoo dal xel ah. yow sa doom daal bu weer dee nga dem yëkkati la nga waroog ustaas ba jox ko ko pour yow daal xadd nga kaaba ga kon na ngeen bàyyi xel ñi ngeen dénk seen doom xam ne jamono neexatul lépp a yokk te ñii mënuñoo yokk koo xam ne li muy dundee dundalee ay ndongoom mi ngi yokk yorul tool yu muy bay amul business buy dundal daara ji oustaz xalifa mi ngi fii ci daara ji amul beneen business boo xam day dem ci marché ba yor fa magasin muy dundal daara ji ci daara ji la ne di dundandoog waa daara ji ñu bokk di dundee li ci daara ji kooku nag ku ko dénk sa doom boo jàppee ne li nga koy fay weer wu dee satisfaire na ko pour daara ji yëgee lu xew te nag ah yaay fay de am na ñu mel ne Maxtaar Sarr ñu bari fayunu te xalifa mënul dàq seen doom école tubaab bi moom am nañ fayda privé boo dem yóbbu sa doom boo fayul ñu dàq ko waaye cas social yi moo tax sëñ daara yëpp léegi ay cas social la cas social yi ngay jël ci daara ji mooy mujj yow borom daara ji ci boppam yaay mujj doon cas social yow soxla ku la jël yow <laughs> kon ñu geestu ko jàppale ko li mbokk mi doon wax léegi porosé yi muy bëgg ci daara jigéen ñi daara ji dana dem ba mu yàgg daara ji dootul doyati ndax résultat bii ma gis ni daara ji de ko am ku ko dégg bëgg fee indi sa doom kon bu yàggee fii dana xat ci ndongo yi soxla na beneen daara ju mu a tabax lu koy tabax fu mu koy jëlee kon yéen ñi nekk ci jataay bi ku ci man di fayal sa doom di fayaat beneen plus dee ko def jaamoo ko yàlla am na parent yu ma xam yoo xam ne nii yemuñ ci fayal seen doom mën nañ ko dañuy fayal seen doom volonté wu di fayalaale keneen kuy cas social ci daara ji ku ko yàlla man loo dee ko laajal dajal jegeel ustaada ne ko ndax daara ji dafa am ay cas social mu jox la liste bi nga ne ko jël naa ci kenn soo mënee jël ñaar jël ci ñaar jaamoo ko yàlla ndax am na loo xam ne koo xam ne la mu yor mën na fayal doomam fayal doomu jàmbur te doomam jii muy fayal doomu jàmbur jële ñu fayalul sëriñu daara bi mi ngi koy yëg te nag ñoom ñëpp ñoo bokk la ñuy indi ka fay ak ka fayul heure lekk du jot bañ la yow jugal sa parent fayul heure sangu du jot bañ ne la doo sangu sa parent fayul duñ ne la bul taal courant bi sa parent fayul waaw daara ji dañuy fay ndox fay courant jënd dund jëndi garab yooyu charge la charge boobu nag buñ bàyyee lépp ak oustaz xalifa dana métti ci kawam su boobaa nag bu yàggee résultat bi daara ji doon am ah bu bu bu bu ci yàlla jàppul mën na sooxe loolu daal kàddu la yoo xam ne santuma ko woon nag waxuma yi tamit ne mi ngi koy dund waaye xam naa ne mi ngi koy dund ndax faa koy dund waaw ah, faa koy dund fa ndakaaru te léeg gis naa ne gaay yi dañuy jógee fii di ñëw ndakaaru faa koy dund fa ndakaaru waaw fa ndakaaru waaw te léeg gis naa ne gaañi fa ñuy jógee fii ñëw ndakaaru ndax jàpp nañ ne foofoo tane moom mu bàyyi fa ndakaaru ñëw fii bu ko nekkoon mu ubbi daara ji ca ndakaaru ndax léeg foofu bu affaire yi dëgëree sax mën nga dugg te ci buntu bureau yi am na ñenn ñu koy def waaye fii defe naa dëkk baa ngi nii ni ngeen ko gisee kamaata kamaatara rek la waa ji ne kamaatara kon boog ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax parent yi dégg ngeen li ma wax hmm? dégg ngeen li ma waxam ah da leen ba mu yàgg ngeen jënd vingt cinq yooyu indi ko fi wala vingt la li kii bi bu niin bi bu niin bi nu mu tuddati ah diw la diw la tudd waaw kay daara ji soxla na ci ay vingt da leen toog ba mu yàgg de ngeen watat benn vingt indi akay sulaa man de su ma toogee bu dul ravitaillement ma gis benn saaku ceeb bu dund dugg aay danaan sama fit bi danaan rëf ab saaku ceeb rek na dugg si daara ji te nekkul luñ jënd ma naan iskay ay boo xamoon la mu la mu jëriñ ca daara ja ah Oustaz Xalifa nee na ku fi indi lii ngay njëkk a laajte boo yeewoo wala boo ñëwee gis ko ku fi indi lii buñ ne la diw la laa ilaaha diw mu indi diw dana niin batt ah, diwo fi indi diw ji dana niin batt ki ñaan waaw ah. te nag afdalu maa yudla wa maa yuqaalu wa xayru maa yunfaqu fihi lmaalu qiraatu lquraani inda nnaasi kasa rawa a'immatu lu waay di jàng téere bee ci gën waaye fu waay di dugal sa alal dugal ko ci téere bee ko gën ñu ngi jéggalu kàddu yi di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee déwén yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am wér yàlla yàlla defar sunuy affaire yokk sunu chiffre d'affaires may nu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala am na cohérence am na pertinence jox na koy exemple yu neex a jëfee xam naa ne suñu fi jógee kenn ku nekk da nga jéem sa kem kattan jéem ko ci sa bopp jéem ko ci sa njaboot